waaw fulk bi nag moom daanaka ci laa yaru ci laa màgg ma fàttali leen kër gi di kër Cheikh Mouhamadul Bachir euh, bi ma amee fukki at ak ñaar laa fi ñëw boobaak léegi ñu ngi bëgg a yàgg kon yàgg naa fekkee fulk <laughs> loolu rek la du dara lu dul ñëw ci loo xam ne naka jekk dama dama koy dama koy fekke loolu rek la du du lu extraordinaire daal waaw ñooy samay ñooy samay sëriñ ñooy naka jekk depuis cheikh Mouhamadul Bachir cheikh euh, Moustapha euh, sëriñ Mountakha sëriñ Fallou sëriñ Isaaxa voilà. waaw démb def naa conférence de presse pour wax ne suñu parti euh, matal na li ñu doon laaj ci parrainage. ma lim bi nga xam ne ñu ngi ko doon laaj pour ku bëgg doon candidat ci élection député yi matal nañ ko caution bi ñuy laaj itam euh, matal nañ ko kon euh, comme ni ma ko waxee démb rek ku dem nu dem ku demut nu dem incha allah léegi nag li ci des mooy aussi waxtaan ak euh, ñi nga xam ne xëy na suñuy xalaat mm, màndaxe na ci ni ñu gisee supparñi yi ñu war a ñi assemblée ba sénégalais yi mën a am fierté mën a siggi ci seeni député ndax fii ñu toll tembe euh, boo dem député sax léeg-léeg da ngay nëbbutu ndax euh, ni yëf yi di doxee assemblée euh, képp ku gëm ne daal war nañu mën a fexe ba député yi di jariñ askan wi waaw ñoo ñu ñu seet nu nuy ànde ba buñ demee assemblée ñu dox loolu suñu kemtalaayu kàttan pour mu changer évidemment député dafa war a jariñ askan wi loolu aussi war te yam rek ci làmmiñ voilà dafa war a dañ ko war di jëfe yooyu nag euh, ay ay ay xeex la du yomb yombut mais moo tax daal ñun euh, pare nañu pour loolu dem assemblée euh, xeex ci loolu ak képp ku bokk boobu gis-gis ak ñun waa dañuy de dañuy candidat lanu xam nga kii du présidentiel nga xam dañ naan diw ak diw ak diw législative la maanaam ay mbooloo ngay àndal pare nañu mais am na ñu nga ñu ñuy waxtaanal yor lu ñu yor ay parti ak ay mouvement yu am solo euh, yoo xam ne daanaka mën naa wax ne manko nanu daal ci ci liggéey boobu mu ngoog